Tata soda. Tata. Okay. Ya mm-hmm. sama papa do mi ñew seen kër Xana nekk ko foon. si parfois dama fay nekk mais parfois damay génn doxi samay soxla. ngay sétal sa yaay ne day mbaral sama bay. yéen yéen yéenay ñan. da ngeen a yaakaar nit ñi xamuñu li ngeen nekkee ku ñëw ngeen accaparé ko seen kër googu ne ko nit kidnappé ko waaye fii kekk la nen du fi boole sama yaay newu fi de certes mais am na doom ju mat sëkk bu toog ci palaasam buleen yaakaar ni nag nit ñi xamuñu li ngeen nekkee de ndax ni ngeen def góor fexe koo jaxase xel mi ba mu jëndal leen kër dugal la ci yaag sa day waaye bii du baax ndax fi ngeen daal baaxul sa yaay nag boo eggee nga waxal ma ko lool ne ko sam papa du ko ñuy mbaraan ah Soda nangu naa la jàll jéeri maa la raw de waaye tey moom suma toogaay du yàgg hmm? waaw ndaxte Soda